mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak kontaan gi addu ngeen di teewlu ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy stade Léopold Sédar Senghor ñëw fii fas yéene dugg ci CNG bi waxtaan ak euh, ki nga xamante ne moom mooy vice président CNG muy Thierno Ka moom la ñu seet si tey fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu fi mu jaar ba dugg si ci làmb ak làmb yan coppite yu bees la indi ci ren en tout cas topp leen ma ñu dugg ci biir waxtaan ak moom. voilà mbokk téléspectateurs yi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi seet si tey euh, sunu papa Thierno Ka euh, vice président CNG sunu papa Thierno Ka moom la ñu seet si tey fas yéene waxtaan ak moom euh, ci lu yaatoo yaatu ñu bàyyi ko munu nuyoog mbokku téléspectateurs Equivox yi ñu daal di dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum tonton. maaleykum salaam donc maa ngi lay nuyu yow itam ak seen i téléspectateurs yi la ñaaneel jàmm ci li ngeen liggéey bi ngeen sumb. yàlla jàppale leen ba ngeen jot ci lu kawe seen jort. Mm-hmm. su ma bëggee xam tey kan mooy euh, Thierno Ka euh, loo may wax. mais Thierno Ka mu ngi juddoo Medina euh, précisément rue 17 angle 6 doon sportif dama daan football moo tax ñu bari dañ ma naan looy wut ci làmb. daan football ba pare dugg ci làmb waaye nag làmb daf ñu mës a intéressé parce que Medina dafa bari woon ay champion yu fu dëkkoon yu si ñoo bokkoon koñ euh, du jaata kooku moom mënoo koo xam c'était c'est les anciens lutteurs mi ngi dëkkoon rue 11 Djibi Ndiaye mi ngi dëkkoon rue 19 Falaye Baldé dëkkoon na fi rue 7 ak euh, comment il s'appelle encore Fodé Doussouba donc euh, dañu am environnement entre parenthèses boo xam ne bi ay mbër dañ fa nekkoon donc ku dëkk généralement ñi fi dëkk ñëpp ils sont intéressés par la lutte donc loolu rek moo ci nekk donc euh, ñu jàng fi jànge euh, France ak Angleterre également euh, ba bi ñu donc fi mu nekk ni jël on est à la retraite. bi ngay nekk Médina ak ni làmb demee woon booba. amoon nga benn écurie boo doon supporter amoon nga euh, foo faroon wala. non amoon fu ma faroon en tant que tel. waaye am na nag euh, euh, écurie boo xam ne bii dama fa amoon ay nit sumay xarit lañu woon ba tey jii ñu ngi ñu ngi ànd mais faralu woon mbër dama daan dem làmb rek parce que làmb ji moom ma intéressé woon. balaa ma egsi ci CNG réflexion li ngeen fa indi coppite yi ngeen ci indi yu bëri. jamono jooju yéen mbër ñoo a ñoo la gënoon a impressionné ci différents écuries yi. oui mooy mooy mooy li ñuy ma la wax. mooy li ma wax mooy euh, Mbaye Gueye plus tard Aliou euh, kii euh, Moustapha Gueye ak ñoo Alioune Diouf ak yooyu parce que techniquement c'était des gens qui étaient valables Alioune Diouf donc mais sinon euh, d'une manière générale dama jàpp ne mbëru yooyu ñoo kon bëri mbaru tey waaw mbër yooyu uh-huh. seen génération boobu euh, moo pour man ñoo ils étaient beaucoup plus techniques que ceux de maintenant parce que léegi da ngay jël fukki mbër kenn nga ci gis koo xam ne mën na bëri ñi si des ils ont le gabarit ils ont le poids yëpp mais euh, ñee la ñu mënoon dafa mel ni euh, moo gën a yaatu li mbëru tey mën mais ñun bu ñuy seetaan image yi parfois donte ni fekkee wu ñu ko yi si bëri on a l'impression que gars yi dañuy yéex par rapport ak di benn bennal mbër yu mbër yu yàq ya non c'est-à-dire que euh, euh, ni ñuy gérer seen carrière moo dul benn c'est-à-dire que ñii nee nañu ay professionnels lañu donc du lundi au lundi ils sont en train de s'entraîner et cetera mm-hmm. donc dañuy am ay réaction yoo xam ne yi ñeneen ñi amuñu ko woon dans le temps ñeneen ñi dañ daan liggéey bu ñu amee combat di jéem a boole liggéey bi ak entraînement yi. ce qui fait que effectivement sur le plan la préparation physique elle est beaucoup plus ni ñu ko mën tuddee mooy scientifique. alors ngeen jékki-jékki ngeen nekk ay intellectuel benn groupe d' intellectuel yoo xamante ne jàng nañu yor seen liggéey yow docteur Alioune Sarr ak ñeneen ak ñeneen ngeen dugg si si làmb ji. commencé tubaabel <laughs> làmb ji d'une manière générale bind ay textes wala. ah oui non fekk nañ fi ay textes on n'a pas tout inventé. am na lu ñu fi fekk. li nga xam ne dañu jàppoon ne war nañ koo aménager. améliorer ko def nañu ko. loo xam ne lii dañu jàppoon ne waroon naa am te fekkuñu ko fii. andi nañu ko. mais bon euh, c'est vrai que bi ñuy toog a toog ñu ngi doon woowee fonctionnaire wu làmb borom karawaat parce que. Euh, bu ñu daan dem euh, ay télévision ak yooyu si comme jour de travail lay doon te loolu noonu lañ daan solo pour dem liggéey doo dem di simmeeku. waaw borom cravate lañ ko tudd borom cravate lañ ko tudd woon waaw. mais ngeen ñëw nag indi ay daan xam nga moment boobu noonu transition boobu metti boobu noonu nan ngeen ko dundee moment yooyu noonu. non jafe lu lu bees rek jafe. il faut que nit ñi dem ba comprendre lan moo tax ñuy def lii euh, mais ay sanctions amoon na fi de ay sanctions amoon na fi gars yi daan nañu dem ba yenn say du ñu laal sax kile seen reliquat donc euh, ay cinquante pour cent kek nangam nangam euh, yooyu yëpp yàggoon na fi am discipline nag dañ ko loo gisee dafay war a ànd ak discipline bu ñu tegee charte yi teg a dégg yi ñëpp fa la war a jaar waaw ñu gis ni dem nañu ba jëmmi jamono ñu amoon ngeen ngeen ngeen yàgg fi yàlla nañ fi gën a yàgg sax d'ailleurs <laughs> waaw ba tey sax <laughs> papa mais ñu bëri di di di wax ni noo yàgg ngeen fii war nañoo changer xam nga bëgg gis lu bees après tant d'années ci liggéey gi nga xamante ne dañ ngeen ko moment yooyu noonu nan ngeen ko dundee. mais écoute euh, euh il faut que nit ñi xam ne euh, euh, CNG Euh, structure euh, associative boo xam ne bii euh, club yi yeeg yooyu ñoo koy ñoo koy ñoo ko fi teg c'est le ministère mooy jël boobu décision ne dafay def pour làmb dafay def CNG point donc ñu yàgg fekk ñu yàgg fee eh, yàgg ministre bi nga xam ne moo moo moo fi teg CNG moom moo am sañ-sañ jëlee ko fi donc loolu ak loolu di ñu mën a wax li wër te wér mooy. dina am bés ñëpp bëggut CNG toog te ñu war a dem te dañuy dem dina am bés itam ñëpp bëgg ñu dem te eh, yàlla ne dañuy toog ñu toog waaw donc c'est c'est tout c'est nit ñi ñoo am ay problème rek mais eh, président CNG du ay nit ñoo koy fal ministre bi moo koy jàpp dañ kii laay jël li nga xam ne daal leer na moom mooy liggéey nañu ak fukki ministre ak ñett parce que naa commencé à travailler dans le CNG du temps du président Abdou Diouf donc bu liggéey nañoo ak moom ak ay ministre liggéey nañu ak waa kër euh, Abdoulaye Wade ak seeni ministre ñu ngi actuellement ñu ngi liggéey ak euh, euh, président Macky ak ay ministre alors ñu gis ni aussi xaalis bëri na li ñu koy tudd CNG tudd kumpa bi nga xamante ne daawoo leen communiquer ci loolu ci dagg yi daawoo leen communiquer ci yu bëri euh, mu nekk loo xamante ne doyoon na waar da ngeen xawoon a tëju euh, kenn ku ci nekk toog sa rukk it li xalaat ni dagg yi fii lay aw ñii làmb ci si suñu kaw la ñuy dund ak yooyu est du ñàkk communication bee ko waraloon aussi. waaw xawma ci seen si seen kaw la ñuy dund ou pas CNG kenn du fa fayeeku kenn du fa fayeeku ku dul directeur administratif bi moom c'est un fonctionnaire du ministère de sports affecté à la lutte moom nag moom sa gouvernement moo koy fay waaye ñi si des ñëpp amul kenn ku ci gouvernement di fay. mais est loolu leeroon na ci bopp ñi ngeen sekkaloon làmb ji. ba ba ba est-ce réeroo amul woon parce que gars bi ñu gisee dagg fin fin d'année gars ne dagg yi fi muy dem gars ne seen yoon dewu ci ci. Euh, ministre bi ñu dénk moom. voilà voilà. affaire bi du euh, nomination wala nu ñu koy wooye du élection moo fa teg président Alioune Sarr Alioune Sarr ministre moo ko woo daal koy wóolu dénk ko su ma juumul ministre Ousmane Paye la alors mais depuis bi ñuy créé CNG ba léegi chaque année dinañu andi rapport d'activité ak rapport financier jox ko ministre bi moom ak ay nitam seen cabinet ñu seet ndax li ñuy wax taxaw na wala taxawul et cetera xanaa kay dofu ñu dof gu ñu leen di wax ay wax yoo xam ne ay waxu naxas xandang la ni ñu koy wax ci wala ba pare ñu fi bàyyi donc ñoom lañ ko doon envoyé premier ministre bi nga xam ne bii dafa jël rapport yooyu ne ñu def koy publier c'était Abdoulaye Makhtar Diop deuxième bi ki ko def mooy bii nii euh, Matar Ba envoyé nañu lañ daan envoyé envoyé nañ ko également jox ko ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci làmb ji pour ñu xam parce que lu nekk li ñuy dégg lu nekk li ñuy dégg euh, mais aussi euh, xam nga aussi boo demul à la source ay hypothèse ak ay supputation rek ngay mën a def alors seen fond de roulement nu muy demee. seen seen dépense kon nu muy demee nan ngeen di déplacé woo. Euh, voilà amul amul fonds de roulement parce que CNG contrairement à ce que les gens pensent nous ne sommes pas subventionnés. mais noo di demee stade la <laughs> noo leen di non li ñuy dundee mooy entre autres choses. si euh, euh, njaayum licence yi. dina andi tuuti xaalis. am na ay genre. Euh, sanction yi ñu teg mbëri aussi dina àndi xaalis yooyu yëpp la ñu dajale di ci di ci dund entre guillemets dund bi mooy lan mooy jënd matériel informatique jënd ay këyit ak fay courant ak nangam nangam yooyu yëpp la def. Hmm. yenn promoteurs yi dem nañu ba xalaat ni boo leen daggee mbër mi au moins war na am loo xamante ne war na dellu si si ki nga xamante ne moom moo euh, joxe xaalisam. ah fan xaalisam. ah non boo xasee ba boo xasee ba signé sa contrat et cetera xaalis bi xaalisu mbër mi la donc bu ñu dagg xaalisam c'est par rapport au euh, à des infractions sur la réglementation boobu moom euh, promoteur bokkut. xaalisam non dootul xaalisam xaalisu mbër mi la. Hmm. ñu gis ni aussi euh, CNG daan na tëgg làmb. jamono yu njëkk ya mais lan moo tax CNG arrêté tëgg làmb amuñu xaalis amuñu subvention wax naa la ko léegi. mais les promoteurs les privés là dañuy jéem a taaba taaba yéen xam ngeen ci dara. dem ngeen ba vay bi ba vay ay combat ngeen réglé ko le jour du combat kay. Ah, am na yu ñu réglé am na yu ñu annulé. waaw mais pourquoi pourquoi CNG mënu c'est-à-dire euh, du ñu taaba taaba c'est la première chose du ñu taaba taaba. Euh, dañu mës ne euh, du ñu dugg ci ay leb xaalis pour tëgg làmb troisièmement bu ñu bëggaan benn date pour tëgg làmb am benn promoteur privé bu bëgg ci date boobu ñu bàyyi xam naa ne nag wutum xaalis yombul te euh, cachet yi may dégg musul agsi fii fii maximum bi ñu fi mës jot defe naa soixante millions la. maximum. Mhm. cinquante soixante foofu la yem waaye damay dégg ay cent quatre-vingt rek ay cent nangam mille ak siwul fii de. oui boobu noonu euh, bi muy bi ngay jot euh, bi ngeen di jot soixante cinquante millions ci ban combat la woon. ou am na euh, ñaaru ñetti combat hein yoo xam ne yi on a déc le, cachet déclaré ici. cinquante millions la. bu ñu déggee yenn mbër yi taxaw wax ni sama reliquat jotuma ko reliquat de sponsoring jotuma ko euh, effectivement cent millions lañ ma fay ñu déclaré ci CNG bi quarante million wala cinquante millions mais yéen ñi gérer làmb ji est-ce que waroo leen coiffé waale loolu yëpp. non c'est-à-dire que euh, depuis daaw dañu ne euh, lépp lu xaalis lu dugg ci combat nañ ko wax mais du duñu gérer sponsoring bi parce que xam nga non duñ ko gérer parce que sponsor promoteur mooy dem liggéeyanti ji ay sponsor donc tu ne peux bàyyi waaj mu dem kële lijjanti li mu lijjanti ba pare nga ne ko kaay andil ma xaalis bi fii duñ ko def c'est-à-dire que mbër yi di wax naan jotaguñu seen xaalis ndax ndax mës ngaa dégg benn mbër ne reliquat caché fayuñu ko ko ku bëri dimanche mardi 11h boo ñëwee ñu jox la sa xaalis bu fekkee def nga ay jaaxum ñu dagg ko boo ki deful lenn ñu jël sa xaalis lépp jaloo la. alors ñu gis nii làmb ji gën na yaatu macha allah euh, presse bi am ci wàllu yaatoo yaatu. ak yàq <laughs> ak yàq yu bëri d'accord accréditation yi hmm, mu nekk moment yoo xamante ne day compliqué surtout bu làmb bu mag amee loolu noonu ngeen ko fas yéene gérer at at ren bi. mais non c'est-à-dire que liñ nan def rek la continuer c'est-à-dire que. Euh, euh, yéen waa presse bi yéen a ñu andil ay jafe-jafe ci biir géew bi parce que y a trop de monde boo amee euh, caméra boo xam ne tu peux faire un gros plan mën ngaa toog ci kaw jël li nga bëgg jël yëpp mais dañu bëgg par force dem ci suuf muy benn ñaareel bi mooy am ñu làmb du seen c'est pas le tasse de café ni ko tubaab yi di waxee boo amee benn combat bu bari coow rek les gens di ñëw les événementiels la ñëw ne dañu bëgg man man plusieurs fois temps yi ma yoree communication CNG di toppatoo affaire yooyu plusieurs fois les gens m'ont euh, euh defa dafa de l'ostracisme maanaam di wax ak ñii te bàyyi ñële may leen mais ñi nga xam ne ñii bu ñaari ganaar day bëree sax Iba Mar Diop ñu ñëw duma leen teg euh, euh, sur le même pied d'égalité ak koo xam ne kii une fois par en wala une fois tous les deux ans koy gis duma leen jox accréditation duma leen ko jox mm-hmm. maintenant ya y a un troisième aspect mooy il y a trop de sites mm-hmm. il beaucoup de beaucoup télé et cetera ak i rajo yoo xam ne ñi dañuy jékki-jékki nga dégg ne am na rajo sàngam wala am na journal sangam mais booy wut accréditation day fekk ñu am nañu base de données mm-hmm. ku ñu xamul xamuñu la. donc da ngay yëglu ñu xam ne yow bokk nga. mais boo toogee ba ñu ne teel combat bi nga bëgg sonal nit ñi di laaj ay accréditation duñ la jox dara. du duñ jox dara. alors moment bii nii accréditation yi parfois ñu ne CNG ñoo koy gérer parfois promoteur bi ak staffam ñoo koy gérer alors ñaari ñaari ñaari mbir yooyu. normalement c'est c'est géré entre le CNG et le promoteur euh, donc dañ daay dañu waxtaanee ba juboo ci ñaata accréditation la ñuy joxe yan organe ak yan structure la ñu liggéeyal après ñun ñooy joxe lii nekk fi mu nekk nii ñu ngi ñu ngi waxtaan ak euh, clé les forces de sécurité pour que géew bi leer. géew bi leer ah parce que bu xajamee trop. seetaan lam ba pare dem ba sa da ngay dem di ko xool ci télévision ça veut dire que tu as perdu de l'argent waaw euh, ndax am na coppite yu rëy yoo xamante ne am na ren yoo leen fas yéene def ren par rapport ak daaw wala euh, yu ndaw la. coppite mooy mooy encombrement en scène kooku moom effectivement coppite dina am foofu parce que ñi nekk foofu ci suuf dañoo bari. te loolu yéen les trois quarts les trois quarts ñi nekk si suuf. accompagne ah, euh, ñi accompagne non non non mbër bi mbër bi dañ ko naan boo dugg si nangami nit nga am. boo nekkee ci biir géew bi c'est échauffement nangam nit nga war a nekk doo dugg ci biir géew bi nangam nit nga war a donc c'est très clair. mais mais est doo leen ko waajal balaa combat di ñëw est-ce que doo leen jéem a leeral euh, presse bi accréditation di am ni ñuy xam ne carrément ñii ñëw dugg si ci làmb ji avant moo gën presse bi tamit di ñëw ba ci bunt bi wala ñu ñëw ba ci biir stade bi ñu ne leen carrément doo leen dugg. ah oui mais euh, yéen di affaire li ngeen bëgg dafa yomb yéen tamit. le gars yi va se débrouiller sànq ne ay gaynde lañu. ñoom promoteurs yi. lijjanti ji xaalis pour tëgg seen làmb yéen ngeen ñëw rek da ngeen ñëw toog comme ça am na ko mu kenn mu wax ne ma droit à l'information ma ne ko droit à l'information c'est deux minutes. oui c'est deux minutes. jàng nañu loolu. Euh, euh, ñëw ne filmer manifestation nit ki yëpp. mais non dootul droit à l'information un reportage. alors ñu gis nii Iba Mar arène nationale arène nationale promoteur yi ne cher na. organiser foofu yombul hmm? déjà pour nga organiser foofu ak chinois yi metti na lan mooy ci lu bees. non attends li bees mooy arène nationale. arène nationale ah, moo moo bees. parce que ay site de compétition nga ma wax Iba Mar nga wax ak arène nationale. Euh, benn da nga dafa cher lan moo cher. promoteurs yi ñoo ko wax nee nañu déjà li nga fay fay pour organiser dafa metti lu ci metti dama nga ñu wax la lu leer parce que ñaari affaire moo am benn bi mooy bi ñu defee arène nationale bi dañu ànd ak waa police ñoom ñooy spécialiste de sécurité ne ñu foofu minimum la fa war a nekk ci ay euh, force de l'ordre war nañ tolloog cent cent yooyu nangam la muy cinq cent mille donc ñoom ñëpp am na ay combat yoo xam ne yi la fa nekk ci force de sécurité ëpp nañu cent parce que ñoom seen xel màcc na ci wàllu woowu ñu ne fii cent du fi doy il ñu andi fii trois cent mais cinq cent mille francs bi waa ji fay foofu lay yem c'est-à-dire cinq cent ah donc boo joxee cinq cent mille soxla trois cent policiers trois cent policiers. tu as dañ lay wax il faut un minimum de cent policiers. cent yooyu nangam la. mais technicien de de de sécurité muy police. mën ne ah. combat bii de sans policier du doy. jëlal seen bopp seen décision yokk yeneen deux cent. d'accord pour kenn du ko fay c'est la police. Ah. c'est parce que c'est eux qui sont chargés de la sécurité publique beneen cinq cent mille bi du location participation au frais la donc bu ñu ko àndee euh, am na lu ñuy def pour électricité am na lu ñuy def pour. Euh, nu mu tuddati encore euh, entretien yi nettoyer yi et cetera et cetera donc euh, du loo xam ne mën nañ ne Euh, location la loca du location. mais ñenn ñi nee nañu <laughs> da ngay ñëw ci stade bi euh, yooyu yëpp gars dañ koy wax nettoyer voilà da ñëw siège yi xaw tilim te nee nañ ñoom jot nañoo fay ci kii parfois ñoom ñooy ñoom ak seen staff ñoom ñooy yor euh, yenn yenn organisation yi ci biir. ñoom lu ñu gis côté côté côté nettoyage moom kooku moo amul mais c'est-à-dire effectivement euh, arène nationale bi euh, y a vingt-deux mille places. il est arrivé effectivement que ñu dem xuloo ak la société bi doon toppatoo loolu parce que dañ koy fay euh, on n'a pas été satisfait la preuve d'ailleurs nekkatuñ fa on n'a pas été la prestation te amee lu ñu leen un franc donc comme nag euh, ñooy fay sunu xaalis ñun ñooy xam lan ban liggéey moo moo ñu satisfaire bu ñu satisfaire ñu bàyyi la te def nañu ko ña fa nekkoon nekkatuñu fa. alors euh, effectivement am na ay places yoo xam ne yi liggéey liggéey taf yëngal lañ koy def au lieu que ñu andi ay karcher rek yooyu ko ak euh, c'est-à-dire les jeux d'eau puissants dañuy jël ki rek c'est-à-dire fëgg épuisé rek mais comme am na ay places yoo xam ne yi pratiquement mosuñu koo ubbi à part deux fois c'est la partie verte et la partie jaune euh, combat yi am suffisamment de monde ba tax ñu ubbi yooyu effectivement côté yooyu euh, euh, comme poussière la bu yàggee day incrusté donc bu fekkente ne dañu ñëw rek jël poussière daal di koy fëgg benn euh, chiffon du tax mu set. voilà ay combat yu ndaw ah ah la. ëpp na arène nationale mooy lan Demba Diop ñaata place la. non non non ëpp na Ibamar laa bëgg a wax. waaw ndax day ñëw arène maanaam arène nationale day rëy trop ci yenn combat yu ndaw yi. Euh, non c'est-à-dire que tu as trois parties tu as la partie rouge tu as la partie jaune tu as la partie verte combat yu ndaw yi yu ndaw yu yamama yi dañuy ubbi rouge bi rek c'est loolu partie rouge boobu rek moo ëpp Iba Mar Diop c'est sept mille places. te Iba Mar Iba Mar trois mille cinq cent la. xam nga xam nga quatre mille donc bu fekkente ne nit ñi. ëpp nañu daaw googu ñu ubbi partie jaune bi ubbi partie verte bi bu fekkante ni soxla na non démb démb Diop laa wax fi ñu daan def tous les grands combats ñaata place la. c'est pas 15 000. ah c'est ah. bi c'est 22 000. c'est 22 000 donc euh, bokkul. Mm-hmm. ba pare nag am na ay coono yoo xam ne dañ koy daj démb Diop ak feneen yoo xam ne amul. arène nationale suuf am na fa. sonorisation am na ay oui. yëpp mu ngi foofu. mu nekk mu war a nekk toujours euh, benn continuité bi entre euh, promoteurs yi ak yéen ci waxtaan. sunu sunu émission mu ngi waaja a jeex. Mm-hmm. làmb ji neex na am na mbër yoo xamante ne macha allah wax nga ko yan combat nga bëgg ñu tëgg ren. tey en tant que amateur ah waxuma en tant que euh, membre du CNG. amateur combat yi combat yi bari na. combat yi ñu bëgg war a bëgg war a mën a tëgg. ak combat yi ñu naan tëgg bare nañu euh, xëy na waxtaan bu jubóole seen biir. mais man est-ce que am naa yu mu bëgg. am na combat yoo xamante day yëngal làmb am na combat yoo xamante ne neex na. oui mais pour pour képp ku bëgg làmb. par exemple tey en tant qu'amateur. am na combat yoo xamante ne c'est di déjà vu. nit ñee ngi koy wax. Mm-hmm. am na combat yoo xamante ne amagul. xam nga ni combat yooyu dana yëngalaat làmb. mais c'est-à-dire. Euh, euh, fi ngeen di waxee ak fi may waxee bokkul on a on a quatre mille quatre mille et quelques licenciés effectivement tu peux avoir un combat am na ay xale yoo xam ne ñu ngi fi mën a bëri lool am fit lool et cetera am na ñoo xam ne ñii nag ñoom ay tur la ñuy la ñuy tëgg ay tur la ñuy tëgg. mais mooy mooy feesal stade tamit. Ah, je suis désolé mais bu bu ñu feesalee stade bi benn noonu lay doon de. boo leen boo leen boo leen woowaatee duñ ñëw boo woowaatee nit ñi pour combat yenn façon combat yi kenn du ñëw. du ñu du ñu bëree euh, li ci war. ñu non bëreewuñu wanewuñu fa dara. mooy les VIP ah, ah par rapport à qui. Euh, ci cache bi par rapport ci notoriété bi par rapport ak ci lu bëree bari euh, tous ceux qu'on appelle VIP ne le sont pas. te xam ko. alors donc euh, euh, il faut pas il dafa yomb trop. nekk ci diggante ñaar ñetti ñeent juróom juróom benn yu mbër rek. fo kooku tax ma laajte la tey yan combat nga xalaat ni war na war na taxaw. par exemple on pa oui mais on parle aujourd'hui de Modou Lo Ama Baldé. xam nga ni loolu combat bu bees la. ay eh, combat bu bees la mais est-ce que dina am parce que li may dégg ci xaalis bari na de. li may dégg ci xaalis bari na lool. est-ce que dinañ ko organiser ak luñ ko organiser. je ne sais de Boy Niang Balla Gaye loolu neex na. non effectivement c'est-à-dire que opposition de style lay doon voilà quelqu'un qui attaque euh, quelqu'un qui qui profite euh, des erreurs de l'adversaire combat yooyu yëpp mën na nekk. Reug Reug ak euh, nu mu tuddati bombardier mais mais y a pas que ça li may wax foofu la waxee c'est-à-dire que boo amee quatre plus de quatre mille licenciés. les combinaisons sont mouse li nga mën a am ci ay combat mais bu fekkee da nga topp damay tëgg mbër mi parce que am ñu tout. mais xaalis rentabilité xaalis yow promoteur bi est ci foofu la gën a nekk. ah en tout cas xam naa que leen de les deux grands combats yu daaw yi am na tey ba tey mbër yaa ngi wax naa jox ñu leen seen sponsoring mm-hmm. muy Lac de Guiers ak euh, euh, Boy di ëmb seen ak. Euh, Modou bind nañ ko journaux yëpp waaw bu fekkonte ne boo tëggee loolu rek am sponsor yu bari kon lii coow lii du am. alors suñu émission jeex na papa. ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku téléspectateurs yi euh, voilà nan nga gisee déjà émission bi ñu def. Euh, mooy li mu wax euh, au départ mooy ñaanal leen jàmm te itam yàlla jàppal leen ci liggéey bi ba résultat yi weesu lool seen njort. waaw loolu moom laay mën a wax te itam euh, saa yu ma gisee journaliste euh, wax ak moom koy wax ne ngir yàlla ngeen wàññi ngeen wàññi ci jiw bi da ngeen fa bari ak charme lamb maa ngi doon dégg ay affaire gants. waaw non ay affaire gants ça fait très longtemps qu'on est en train sur cette affaire là. on a eu des ay prototypes de gants yu ñu fi andi ñu xool ko au niveau du bureau. ba pare woo ay ancien champion ndeen kaay leen xool parce que gars yi il faut mu bëri li ñu wax donc bëri mooy jàppoo donc il faut que gars yi war la mën a euh, permettre nga jàpp sa adversaire loolu ko defee du dénaturer làmb parce que ñun euh, li ñuy def fii amul fenn bëri dóor à menu façon bi amul fenn. ah façon bi amul demal Nigéria am na bëri dóoru. oui je mais à menu mais ñoom dañ ciy def raffia teg ci moo gën a garaaw. Hmm. donc façon bëre bii Sénégal mais bëre am na beneen façon bëre dóor ay dans le nord du Nigéria am na gaa yooyu euh, dañu buggoon effectivement que euh, euh, ñu am. ay ay ay ay gants yoo xam ne di nga mën a dóore te di nga mën a jàpp euh, mais bi ñu seetee ancien champion yooyu dañ ne ñu ah baax na de waaye làmb ci kaw suuf lañ koy def di sottee ko ay saafara te saafara soosu ak ndox mi bu collé ci gants bi ça fait plus de dégâts parce que ça devient abrasif ñu bàyyi loolu. mais bu jógee naan euh, dóor bi euh, gars yi il faut ko pour protéger les lutteurs non ban ban lutteur la ñuy protéger gars c'est pas pour protéger celui qu'on frappe de c'est pour protéger celui qui frappe am na ku ma sa benn collègue journaliste bu ñu waxal temps yële man ma waaw kii ma ne ko non ñu ne am na sax benn boxeur bu gaañu effectivement am na benn boxeur bu gaañu il y a trois semaines de suite d'un kaw c'est c'était clair donc euh, mu ngi noonu. mu ngi noonu kontaan nañu tey kontaan nañu tey kontaan nañu bu baax a baax ñaanal la aussi euh, yooyu euh, nga yàgg fi lool te ànd ak wér ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot gi. voilà mbokku téléspectateurs yi. comme ni ngeen ko gisee ni ma leen ko waxee woon ñu ngi ñëwoon tey seet si sunu papa Thierno Ka bu CNG hmm, ñu koy remercier bu baax a baax gis ngeen waxtaan bi ni mu yaatoo fi ñu débuté ba fi ñu egsi parce que soxla woon nañu aussi xam aussi ni mu jaaree ba dugg ci làmb Cheikh Omar la woon ànd peace.